ñëwee kenn ku nekk da ngay jël sa intérêt bopp teg ci suuf merci beaucoup pour ce beau geste sama gars yi aca ñu commencé euh, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu gars yi ñu dégloo si ginnaaw tuuti waay ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna bi yëpp monde entier parce que à travers tey télévision yi ak site internet yi monde bi yëpp dañuy suivre ñenn ñi sax en direct lañ koy suivre te ñu nuyu bi ñëpp ñu ngi leen di ziar euh, fi may njëkkee nag mooy euh, sant yàlla bu baax sant yàlla sant yàlla ñetti yoon li tax loolu am tey mooy lii li Malick Thiam wax léegi mooy crème làmb mooy crème sport Sénégal defe naa dajale leen tey yombul woon waaye nag yaakaar naa ni léegi mentalité yi ak esprit yi léegi mu ngi changé bu baax a baax a baax parce que bu njëkk dafa am fu ñu bàkkee woon mbëri ay ennemis lañ mbëri du ñu jegante mbëri du xalaat mbëri du ñu donc loolu jeex na tey mooy mentalité yi changé na tey nag damay wax si association bi association des lutteurs nationale du Sénégal sunu président tey nekk nii sama wet di Gris Bordeaux ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu Balla Gaye di nuyu euh, vice président bi muy Balla Gaye di nuyu le secrétaire général tragé président d'honneur euh, Khadim Gadiaga euh, di nuyu Baye Mandione di nuyu Boy di nuyu ñi si ginnaaw ñëpp nag xam nga tey soo limee dina gudd mais comme dañ nekk si point de presse tënk rek mais ñi si ginnaaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ñu teg nag bu question xam-xam ou dañ fee ëpp am jàng mais yàlla mooy def rek que il faut tey bu association amee muy mbooloo il faut rek am ñu ne ñii la ñu jiital pour ñu wax mais champion yi si ginaaw yëpp ñu ngi leen di nuyu di ñëw nag si benn point bu ndaw rek Malick Thiandoum wax na ko léegi c'est très important muy booy Niang ma ne toog tey dafa def semaine passée benn lu xaw a mel ni point de presse ñu bëri nag dañ koy interpréter nu nekk que mooy mbëri ñii def nañ fi ñi def ne non non non loolu amu si Boy Niang si ñun la bokk si association bi la bokk kenn ku nekk tey am nga sa gox ba nga dëkk nga sensibiliser nit ñi wax leen ni leen làmb tey fii la toll Boy Niang si contexte boobu la ko kon si à saluer ñu ko si remercier bu baax a ah, fi may ñëw nag mooy euh, di gërëm presse aussi parce que euh, on est ensemble mënuñu def comme ni koy waxee rek da ngeen ñuy soxla dañ leen di soxla li ñu wootee yéen ñëpp ñëw ngeen donc ñu ñëw nag directement si dañu euh, fi dajale mooy comme dañu rek xam na ni am na accepté nañ ko coronavirus bi li nangu nañ ko mais ñu ay citoyen lañu tey li ñuy wax nii tey suñu devoir la suñu doléance la aussi mooy tey secteur yëpp ñu ngi dundee ñu ngi def ba mu des làmb nag li ñu daje tey base bi dëgg dëgg dëgg mooy quest va faire pour démarrer saison de la lutte sénégalaise mooy première ambition bi moo ñu dajale fii tey euh, beneen point bi mooy euh, tey pandémie bi am tey crise bi am man sama secteur sax la gën a frappé la gën a laal muy mbuur ndax ku ne xam na ni euh, émigration clandestine bi am li ci tey mbuur moo nekkoon point de départ bi man mii tey xam naa ci mbër yu bëree bëri bëri bëri yoo xamante ni si la ñu jaar ñii yegg nañu yàlla jël seen bakkan kon man sama secteur la gën a touché donc ñu ngi lan la war a def tey pour làmb ci secteur donc comme je suis le porte-parole donc damay ubbi euh, ku nekk tey am nga sa am nga sa xalaat mais man li may wax rek mooy tey ñëwuñu fi tey pour bras de fer ak état ou def violence u forcer dañu ñëw en tant que ay citoyen parce que bi mu amee le président Djidy Modou dafa def benn acte noble dafa euh, waxtaan ak bureau bi yëpp ñu jël sunuy buy ak sunu daqaar ak sunu suukar ak lépp teg ko si loxoom mu yóbbu ko jox ko ministre bi donc kon tey bu ñu wax ak euh, acte acte yi tey kon mbëri ñoo ci jiitu kon nag il est temps état gestuñu xam ne ñun ñi tey kenn ku ci nekk dafa am lu nekk sa ginnaaw kenn ku ci nekk nag di famille da nga jiite écurie tey bu ñu toogee di wax peut-être du pour ñun mais dañu am ay xale yu nekk suñ ginnaaw yoo xamante ni si làmb la ñu yaakaar tey ñu si bëri ñu fi wax tey jot nañu combat mën naa wax ni ñu si jot avance complet bariwul ku si nekk da am loo jot rek ñu ne demal nga préparé di xaar xaar bi kañ la jëm xaar bi kañ la jëm ak fan la jëm ak kañ la xamuñu kañ la ñu ngi janvier bu ñu demee mois fin d'avril mais koor gi la juin juillet saison bi tëj même bu ñu ubbi woon janvier tey saison bu gàtt la ñu am donc mbër jëloon avant saison bi ñu tëj daaw kañ la ñuy bëree ak fan lañ koy bëree ah donc loolu nag actuellement dafa dafa metti dafa metti tey jii euh, man am na lu ma laal ba laal lu mu laal ñu ngi toog di xaar waaye comp mooy laal bi léegi ñu ngi toog di xaar jeex na bu yàgg ba fi nekk nii ku la gis yaa daan yaa ngi si plein euh, plein préparation combat. te yan condition ngay préparé mënoo con mënoo préparé à 100 pour cent. donc ñun accepté nañu ni pandémie mu ngi fii mais il faut ñu trouver ay solution il faut ñu trouver ay solution pour xool naka la ñuy ubbee stade yi. lan la xaar si loolu la ñuy xaar si état bi nag. parce que tey secteur yi yëngal nañu. te dafa benn moom ma dégg nag gars yi di ko wax lu bëri ay mbëri bu ñu yëngalee. buñ bëreewul agression day am ay nangam nangam non non loin de là nañu dindi loolu. nañu ko dindi mbër yi mbër yi c'est ay noble lañ ay noble gis nga ku bëgg a gis gor ku bëgg a gis noble dëgg dëgg dëgg jàppal mbër parce que xam nga xam nga ñun ñi ngay gis nii. dañuy demee suñu ngor demee suñu sakk deme suñu sutura tey bi pandémie bi amee manoon nañoo toog deux trois mois ñu commencé naan nañ ñu dimbale nañ ñu jàppale nañ ñu sarax mais ban bën nga dégg gu mu ne nañ ñu dimbale amul li ñu soxla xam nga mooy lan am na xale yu topp suñu ginnaaw mais li suñu devoir la nañ ñu ubbil ñu liggéey waxuñu nañ ñu may waxuñu nañ tey devoir la aussi ñu ñu demandé ñu li ñu moom si état bi parce que tey état bi ñu dañuy fay impo man damay fay impôt ah? da dama dama créer emploi dama am entreprise donc kon tey damay def si état bi état bi tamit lan la war a def si ñun kon nag pour ma bañ a guddal samay yeneen partenaires ñu ngi fi ku nekk am na lu mu war a wax euh, tey boo gisee xale yu bëri tey di mbëkk di jël gaal yi mooy dañu manqué espoir seen dëkk te nag xale bu ndaw sax boo ko dàqoon tey muy reculer ba sës si miir bi day riposte tey boo nee xale yi nañ toog si dëkk bi il faut nga jox leen ban bu ñu toogee état nañ gën a créer ay emploi parce que fii li gën a métti nag mooy tey nga jàng ba mu sa yenn diplôme yi def demande fu nekk donc ñu rejeté la da nga naan man sama jàng la ma jëriñ. yooyu stage rek di voilà da naan man sama jàng la la ma jëriñ dootu amati espoir sa dëkk. état je vais lancer un appel je vais nga gën a créer emploi na nga gën a créer emploi. tey nag ut solution naka la ñuy def. pour ubbi ñu suñu làmb ji merci merci beaucoup Bombardier introduction bi am na solo gàtt na saf na ndax tey ñii euh, wax seen bopp taxul seeni rakk yi topp seen gannaaw ñoom ñoo gën a ñokk tax ñuy wax parce nag coono bi mbër ndaw yi ñoom ñoo gën a sonn foofu ñuy il faut ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a baax mbëru mbapat yi ci àll bi ñoom ñoo mbëkk parce que amatuñu espoir daan dem di mbapat yi di fa fortaat léeg-léeg nga gañee nag léeg-léeg nga gañee as tuut juddu nga yaakaar gàddu sab saak foo dégg mbapat dem ko déggatoo mbapat di nga wuti leneen loo dem dama ne booy yi ci ginnaaw ñoom ñoo gën a sonn fu ñuy daggee tànk kenn du fa jooy suturaal na leen mën mën nañu seen bopp de bu ñu ñëwee porté combat bi tax ndax ñoom am na lu nga xamante ni nii tekki nañ ko ci réew am na lu ñu investir am na fu ñu mën a suturloo mais ñi nga xam ne ay xale yu ndaw lañ laaj yaakaaruñu lu dul làmb mais tey làmb di tëj amuñu benn fu ñu dem mënuñoo fëgg bureau kenn booy yi ñu ngi bëgg a waaye dañ leen xalaat bu a baax bu ñu paree ci le B52 de Mbour wax man mën naa ko seede Mbour c' est un drame c' est un drame la fa xew da ko raay rek mais lu grave moo fa li mu ci wax rek doy na dañuy bàyyi Balla Gaye 2 euh, mu sànni ci kàddu en tant que vice président deuxième vice président de l' association. ngeen baal na déggoo combat bi tey la wala benn combat rek nga fi am. mooy corona bi corona. asalaamaaleykum euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di bu baax baax a baax. sant yàlla aussi ci bi nga xamante ne dajale na ko fi tey suñu président di Gris Bordeaux ñu jiital ko daanaka bu ñu nuyoo Gris Bordeaux rek ñuy nuyu bëri yëpp waaye nag li ma ci njëkk a wax mooy ñu ngi sant ñi nga xamante ne ñoo waral lii tey mooy ku ci mel ni Ilimane Lam ak Aziz Aly Ndiaye ginnaaw yàlla ak yëpp na mu neexee nag. ak nu mu ak nu mu taaroo ñoom ñoo ci jàpp parce que ci liggéey bi bokk làmb la ñu dund mais aussi tamit di sant suñu papa yi nga xamante ni ñoo tax ñu bëgg làmb ndax làmb fu mu jógee moo sori ancien boulaar yi ku ci mel suñu papa Mbaye Guèye Robert ay Falang ay Doubales ay Boy Bambara ñoo xeex lii ba tey ñoom ñu ñoo ñoo xeex xeexul rek du ñooy góor ndax mbër mbër moo gore mbër mooy jàmbaar mbër mbër kenn mënu ko fa parce que ñu dañuy simliko di jaayante di dem ci jéego di dem ci montagne yi di dem ci musculation yi di dóorante ay kurbañ soxla ñu alalu jàmm suñu doole lañ jóg moom la ñuy sàmm ba saa su ne rek lii am léegi nag yàlla dogal na coronavirus bi yàgg na lool lool lool parce que tey xamuñ kañ la ñuy dundee li le président de la république du Pakistan am na solo bëri mën na koo xam mais boo wàccee ci terrain bi di nga xam lépp di nga gisal lépp réew mi fi mu toll ndayoon sonn nañu jeunes sonn nañu bien vrai que nag yàlla suturaal nañu ñëpp a suñu laaj ba àgg ñu àgg dafa may xale yoo xam ne ñoo topp suñu ginnaaw bëgg ñu yaakaar ñu te bu ñu bëggee làmp aussi tamit ñoom ñoo tax tax kon nag rafet na ah mesures barrières yi mun nañ ko respecté. dañ ko mos a respecté. dañ ko mos a boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaan di ci def suñu xeetu laay kattan. sensibiliser kon nag loolu rek mbëgg mun ko fay ndax tey. boo bëggee woote woon nguur bu nekk seen Gris Bordeaux noonu Balla Gaye noonu kon nag li ñuy ñaan monsieur le président de la République du Sénégal mu tijjal ñu suñu stade ñu bëri tàllal ñu suñu loxo kenn pour ñu ñaan parce que bu am rek suñu bopp ñu ko parce que ñun ñu ñu ne nañ ko mais xale yi. xale yow bu jar a sóoraale la parce que ëllëg njëriñu réew ñoo ci ñoom làmb nag mu nekk facteur développement boo xamante ne sa waay ah président nee nañu daal wax ci jëw ñuy bëri jëw ñuy gudd mu nekk suñu activité mu nekk suñu activité daal di liggéey parce que moom lañu am loolu yaakaar képp ku fi mës jaar mun nga nekk ci état respecté làmb jox cër làmb làmb neex amoon am fu mu toll mais léegi làmb moo ngi am tànk dellu ginnaaw te loolu du yoon monsieur le président xippil say bët bu baax te xam ne làmb am nañ ci yow yaakaar te yaakaar boobu bu boobu si yow dañoo bëgg boo fi jugee nga ne monsieur le président de la République di Macky Sall defal na làmb loo xamante ne kenn mësu ko defal dëgg la ay sat am na mais aussi tamit boo ñu boo ñu boo ñu dimbalee esat bàyyi ñu noonu rek bàyyi ñu noonu day métti monsieur le président kon gars yi ñu nga jot ñu ñoo bëri dina fekk ñu yàgg bàyyi ko ñoom jërëjëf euh, Balla kàddu yi rafet na kàddu yu responsable la euh, comme ni ñu koy waxee rek du jar guddal euh, dañuy jox le président d'honneur Khadim Gadiaga après Gris Bordeaux en tant que président moom mu tëj wala à l'agriculture euh, le dama Serigne Mbacke Ndiaye am na contribution bu am solo bu nga xam ne bëgg na ko ci def ndax dañu tamit xelam dafay jaadu ñu taataan ko donc ñu bàyyi Khadim Gadiaga jox le ministre pour deux minutes Serigne Mbacke Ndiaye en tant que amateur sax la fi ñëw euh, mu am ñaari kàddu yu ci sànni parce que am na ay propositions yu am solo yu nga